également de Sambara li ci ay mbër parce que bokk na ay également de Sambara Massène day fecc rek ay day fecc Massène day fecc day fecc day fecc Massène day fecc day dawaat ma ngay dawaat jëm ci mu kaayam tey ëm tey lam tey Dakar Actu ñoo ngi wax day li tubaab naan hey Coly gëdd na caat nga koy xool caat mbërum awa jooba caat daawuda fal tey nag mbooloo mu bari la fi andi waaye Coly Faye nga koy gëdd Collé nekk gauche Thiatta nekk droite Collé ak Thiat Thiatta Coly eh daw nañ jàppante eh ca Collé koy dóor Collé koy dóor hyperkit Collé koy dóor hyperkit Collé koy dóor hyperkit waaye Thiat daaw na jàpp lay wër fu ñu jëm Thiat dóor na benn sëram ca suuf fu ñu jëm Thiat loo bëgg a def Coly ak Thiat. laa ilaha illallah tarkindaa bu ñuul bi ak xale géeja way bi ca biti ñu ngay imposé te doole Coly bañ ne du génn Coly da ko bëgg a ko caata Coly Coly déedéet Coly combat bi jeex na Coly combat bi jeex na foofu loolu ma doon na la tee fekk Coly loolu mu yóbbu ci yow ci énergie bari na Coly Faye loolu nga dépassé ci énergie bari na wala sa yaram moo tàng ca Daouda Falang ca kot suba Lamine Golo avertissement Thiat Daouda Fall hey Coly dóoraat na ko jàpp ko waaye yow Coly Faye mi mu nar tey Coly tey Coly génne na loxoom da koo bëgg bët mu bañ Thiat da koo bëgg bët Coly gis na ko bañ oh Coly Faye ak Thiat Colle yor ngemb lu vert li moo wane ginnaaw Macha ngi waxak ak ñoom rek Macha moom du la ci bàyyi danaan la bëreel yàlla ku avance da ngay tudd pom bëre leen bëre baaxu góor la Alioune Mbaye Nder a wayal ndeer booy mu ne bëre baaxu góor la eh way ndaw waaye wax na dëgg de baaxu góor la de sunu maam xar mbay ma jaaga ne bàyyi leen yaa ji te laale laale baaxu góor la waaw aja andi ko cunne géew bi ate tooñ la cay lamb waa fekkeen du fàtte ku dul arbitre lu xew Mathia daa bëgg ñu bëre Mathia moom daa bëgg mu wexxat Coly tey ni ma gis muy bëre daa mel ni bëgg na jaxase combat parce que Coly bu ñàkkee combat bi day metti ci moom dellu nañ fan nekkoon de. Coly déet Coly song moomu mbaa wóor na laa ilaha illallah door na ko hey sas na koy ku xale bi da koy daan da koy daan daan na ko jël baa rëy waaye jël baa rëy wax naa leen ko Balla Gaye numéro 2 bu ndaw a leen ko xel daa mën a bëre Coly Faye xeex ba neex xale ba na ca suuf di bëre laa ilaha illallah ay waay Pape Faye bii jël rëy baax na wax naa leen ko man Balla la 2 rek la may jox te ba muy débuté carrière am moom caat bu jàppee day bëre de bëre rek lay wër te tey daa mobilisé mais koli fay ni mu déparé combat bi baaxoon na waaye nag xeex baa tax kay Pape Faye toppal ma loolu